dernière opération rëbb dëmm ci Sénégal ci Afrique sow jant ak ci àdduna ñu ngi koy ñaan suñu borom subhaanahu wa taala yàlla ko yàlla defee noonu parce que bu ñu éradiquer dëmm yi rek lépp jeex tey nag ñu ñëw buggal leen defal opération rëbb dëmm kii nga xam ni nekk na fi seen ministre du finance di budget Nek na fi ministre des affaires étrangères Nek na fi premier ministre Nek na fi directeur impôts et domaines bu Pikine na fi directeur impôts et domaines bu Dakar Nek na fi directeur impôts et domaines Bou Sénégal Nous Amadou Beydi Bayal Ba de son vrai nom Amadou Bédi Bayalba est né le 17 mai 1957. Après un jugement, 1968. Presque 9 ans, il Il est né à Nyaritali, Bagar. de père Ibrahim Ba yaayam di Marianne Bal, issue d'une famille ultra pauvre extrêmement pauvre Amadou Bayal Ba ay waajuram kii di Ibrahima Ba ak Marianne Marianne Ball dugal ko école primaire mu nekk école bu nekk ñaari ñu naan ko route des puits nga xam ni soriwu ko bu mu fa jógee bu mu paree école primaire mu dem fi nga xam ni mooy lycée technique Maurice Delafosse foofu la defee CEM foofu la defee lycée bu mu paree foofu it mu dem université de Dakar bi université de Dakar jaar France vite fait Euh, Amadou Jules de je me lu ma jaar tey ci vrai Amadou Bey di Bayal Ba di Bayal euh, sincèrement c'est un ancien responsable du Parti socialiste des années 1990 muy militer à Grand Dakar fi nga xam ni foofu la ki ñu wooye Mbàkke yu fay nekkoon donc bokk na ci ñu ko tette ci politique à Grand Dakar foofu la dajeel ki nga xam ni mooy premier soxnaam bi muy wax ne def nañ plus de quarante ans muy Aïssata Biliba Aïssata Biliba aussi. Euh, papaam doon liggéey chemin de fer demoon ak comme ni ñu ko waxee cheminot demoon ba Guinée daje fa ku ñu woowee Mariama Ba di ndeyam di guinéen cent pour cent mu takk ko jëlee ko Guinée indi ko moom ay Aïssata Bili Ba yaayam bi ko jur di dund tudd Mariama Ba ba tey mi ngi dund nekk ci kër gi nga xam ni Mermoz Mamadou Amadou Ba moo ko tabax foofu la yaayam di dund te guinéen la dinañ ci gën a leeral donc bu ñu jógee ko ñu bagaar nekk fa mu metti loolu ci ñoom comme ni ma leen ko waxee moom Amadou Bayal Ba parce que papaam liggéeyul yaayam da doon taaba taaba mooy Mariam Ba papaam Ibrahima Ba musul nekk imam musul jiite benn jàkk musul tabax juma ci génn di kolo kolo di wut lu ko jox bu weesoo loolu musul def leneen euh, mu am ay frère am ay sœur it donc mu duggee ci affaire politique

la famille de Aïssata Bili Ba vous trop ci une famille extrêmement pauvre à Thiès lorsque leur père avait abandonné leur maman paix à son âme son papa, pour une dame plus jeune ils étaient tellement pauvres que c'est Amoudou même qui les a sauvés de cette précarité Amoudou qui venait tous les week-ends à Thiès aux HLM route de Mbour HLM foofu la la famille de Aïssata Bili Ba dëkk nga xam ni tey dafa Amadou Ba jël nay milliards def fa defar na ko donc Amadou Ba ci boppam lu mu njëkk a scandale bu mu njëkk a def bu mu paree jàngam lu ko yóbbu parcelle nag quand il galérait à Medina à Thiès, Medina le quartier s'appelle Medina ok. Euh, quand ils galéraient gravement, ki nga xamni mom moy, euh jamono joju à tali Grand Dakar encore une fois mu metti ci ñom ci ko dem parce que jamono Rappelez-vous très bien, aux années 90, Dakar, dëkk dafa torop moment boobu à commencé di am ay parcelle di am ay di mais amul woon amul a ay pikin amul ay géejawaay amul a parcelles ay la ay din mo fa ay souf lañ doon entraîner stade bobu ngeen di 92 lañ ko tabax donc 88 89 90 Parcelles Assainies allons et woon ay cocotier ñoo fa dunes de sable ñoo fa ak ay rivière ci ci côté bo àll boobu noonu ñu fay bay loolu fa donc parcelle allons, la hamni, bi nga xam ni ki nga papa yi Amadou Bay di di Ibrahima Ba installé fa ak yaayam Mariama Bal, mu metti woon ci samp fa seeni bant ci lañ dëkkoon ci boobu kër amuñu ko woon dañoo ñëwoon foofu parce que c'était pas lotissé donc da doon ñëw ci benn àll rek nga samp say bant donc loolu lañ defoon dañoo ñëwoon papaam dafa ñëwoon samp ay bantam ñu teg fa seeni kër mu ñëw dëkk fa papaam moomul woon kër googu foofu terrain la woon bu vide papaam ñëw samp fa la leen dëkkaloon donc muy parcelle Assainies unité 6 ndox bi nekk ci ginnaaw ci àll bi donc bu mu ñëwee Parcelles Assainies encore parce que galère moo leen dawloo papam daw ki nga xam ni moom mooy Ibrahima Ba ànd ak yaayam ñu tibb xale yi dem ba ci àll parcelle ba nga xam ni boobu parcelle amul woon existé wul woon dara amu fa woon lu dul ay dune suuf sable et cetera donc ci la ñu dawee ñu dem xool benn terrain papam samp ko sanc ko Nous avons fa foofu de Nous Nous muy 6 donc il ay unité unité 1 unité 2 presque donc mu Nous di Mom ki nga xamni mom moy yu fay très connecté moko bolé won ak PS yi nek Parcelles mo bañu duggal ko conseil mu municipal à la ville de Dakar Conseil sonu loolu wow nak ñu ko laa ilaha illallah boko ko doon xool da koy bëgg sarax mu nekkoon PA nekk fa conseil municipal ñu jël ko fa mu doon conseil municipal de Dakar pour le compte de la commune euh, des Parcelles Assainies fofu la nekkoon donc donc Parcelles Assainies papa mo ñëw sant ci àll looloo ko fa indi mu ñu mu eggali nag jàngam lu muy jóge France dem France taxawaalu fa mu metti woon lool ci moom tamit boo ko xooloon euh, mi ngi ñuul nopp yu rëy la nopp yu gudd euh, sew tuuti gars yi ne nañ bu ñëwoon sax dañ ko doon jaawaleeg bu duggoon ci kër dañ ko doon jaawaleeg mooy pël yooyu doon ay tiis yi nga xam ne dañ lay jaay tiis bu mille francs nga leen di jox chaque jour cent franc ñuy tracé ci benn benn jël këriñ tracé ne fay nga cent franc ñu ko xam dëgg nee nañ ma Amadou bu taxawoon da doon jox pël yooyu paa yi na ma dañ la doon jox pël yoo xam Amadou bu duggoon ci kër da la jox gars yi dañuy wax ba dañuy foog ni da la doon jox pël yooyu nga xam ne dañ la dañ doon wër ci kër yi yor ay tiisi teg ko nii di la di la ko leb di la ko lebal bu ñu la ko lebalee chaque jour dañ fay ñëw yor këriñ war a yor war a créer rëdd ci miir bi ne eh, fay nga cent franc noonu ngay def ba mu mat sëkk ñu ne Amadou xeet boobu la doon jox bëccëg fukk voilà bëccëg fukk nee nañ ñoom nee nañ Amadou bu ñëwoon euh, euh, da ngay xool rek ndax mu sewe woon nu mu wowe woon nu mu ñàkkee nu mu sonne woon ba pare bëgg lekk mu bëgg lekk mu ñëw ci kër musul wax suur naa ndax dafa sonnoon amuloon lu mu lekk donc bu ñëwoon ci kër du wax suur naa boo mu wooyee rek day du hésité day ñëw day ñëw kowaa day ñëw raxas loxo yi rek commencé dóor bu mu demee France sax France euh, fu mu nekkoon pour ñàkk am lu mu lekk parce que ñoom Mbàkke yu fay bokk na ko ko lijjantil pour mu dem France Mbàkke yu fay bokk na ko ko lijjantil pour mu dem France bu mu demee France yàggu fa nag mu metti ci mom lool muy lekke partout lek ci kër jàmbur te loolu amul France di lek ci lek ñu ñu ni parce que da do am pavillon yo xamni da do am ñu feebar euh, pavillon des malades quoi des malades et tout ça ñooñu xam nga ku feebar buñ la joxee loo lek mun nga ko bañ lek quoi parce que da nga feebar dégg na Amadou do doon dem ci pavillon yoyu di xaar gaay yi malade nga xam dañ leen jox lek lekk ñu ko lek mu encaisser ko dóor. loolu la doon dundé ak doom kër jàmbur squatter kër jàmbur lekk ceeb yi nga xam ne wala lekk tibb yi ñuy tibbal euh, ñi nga xam ne dañoo feebar la ko doon xaar ndax nu mu sonnee woon papam papam amul yaayam amul kii nga xam ni moo may bàkkee fay moo ko jël rek sànni foofu donc taxawu fa yàggu fa yàqu fa dugaloon na fa nag li nga xam ni moom mooy en tant que étudiant dugaloon na fa ay këyitam euh, ba nationalité bi bu muy génn fekk na moom ñibbisi na Sénégal mu daw daw bu gaaw sax yàggu fa yàqu fa donc moom Amadou Bédi Bayalba commence commencé nag ci politique bi bu mu conseil municipal euh, bu Dakar nekk fa ba bi nga xam ni mu continuer jàngam bu mu paree ñu yóbbu ko Pikine mu impôt et domaine bu Pikin. impôt et domaine bu Pikin bobu nak. première malversation financière bu à coût de milliards bu fa moy premier milliard mom gouvernement du Sénégal a décidé de zone mbaaw projet de zone franche industrielle la ko zone franche industrielle donc ñu avons xar lepp lu tambalé mbaaw Pikine Pikine après euh, euh, Pikine bi après croisement Pikine bi di jëm buntu Pikine jëm fofu yëpp amuloon dara ñu waroon ko défar ñu waroon ko tabax pour mu doon ben zone franche industrielle motax lepp lu ay Nestlé ay ay Nescafé ay ay kafal yooyu fofu la nek donc bo xolé ben côté légui nak lolu mom état bi exproprier ben famille ñu ne ko la famille Thiandoum Thiandoum du congaan la famille Thiandoum mu exproprier la famille Thiandoum le gouvernement jël terrain fofu yépp parce que ay àll dañ fa doon bay gouvernement bi jël terrain wu famille càndum boobu noonu mu nangu ko ci loxom ne da koy défar zone industrielle ils ont utilisé un tiers seetluwu leen foofu noonu bo boo rombee buntu Pikine après usine Madelaay yi la après kafal Nestlé etc cetera et cetera après usine yi jeex na après boo demee ba bo ba euh, euh, moy usine usine bi euh, bu nek phosphate bi xom ammoniac bi juste après fofu rek lu ci des yépp ay kër la donc lolu nak Amadou Balde Ba wala mané mo wax ci vrai touram Amadou bey di Bayal Ba Azur et tout ça fofu yépp ay kër la don ba fin Grand Dakar Grand mbaou Petit mbaou yo yep, Amadou Ba moko partage si Cap après ICS après ICS le loolu fof donc un tiers l'utilise. utiliser bu un tiers Amoudou Amadou Bayal Ba les deux tiers en complicité avec le maire Daour Nyanyaï, avec le préfet Ibrahim Gueye nous jël ñu tok def réunion fas yéene jaay les deux tiers li fa des avec le maire parce que mënul jaay suuf si te du ci waxtaan ak maire bi donc il a que comme gouvernement bi un tiers la utiliser nañ jël li ci des ay Sicap Mbao euh, euh, Fass Mbao ay Grand Mbao ay Petit Mbao yooyu yëpp nañ ko jël jaay ko donc buñ ko moom ak ñaa Ndiaye le maire ak Ibrahima Gueye ñu jaay terrain yëpp foofu la njëkk a encaissé ay milliards trois tiers yi trois trois euh, deux tiers yi ñu jaay fa la njëkk a commencé nag di enrichir boobu mi ngi nekk directeur impôt et domaine bu Pikine bu Pikine mu dóor fa ay milliards. moo tax foofu ba léegi problème boobu daf faa am dëkk dëkk boobu nit du fa toog ne am naa baay nit du fa toog ne am naa titre foncier parce que la famille Thiandoum dañ ko porter plainte Le gouvernement bi nan la mun a exproprier sen terre jaay un tiers bi mu def ko zone franche industrielle lu ci dess yëpp mu def ko ay ville mbaa ville neuve ak nangam ak nangam donc ñu dem ci fi nga xam mom moy justice la famille Thiandoum gagne donc mais comme le gouvernement est très puissant gaay yi nañ lepp jaay nañ terrain gaay nga tabax lool motax côté bobu un problème euh, euh foncier moi un problème de bail un problème de titre foncier pour nous am ko c'est tout un problème parce que si nous fay bu la jox la famille càndum da top donc moi tax foofu ku fa jënd terrain vous fa am bail vous fa am titre foncier parce que dafa am un ko Moi, la famille càndum vous la njëkk a doré ay milliards moom Amadou Bey Bayal Ba ak politique bi nga xamni poste bu mu occupé rek politique mom moko ko jox pour répondre ñi nga xam ne dañ doon wax naan Diomaye fay euh, waxal poste yow fu mës a occupé xaw lan ak lan mais musul occupé poste ci def lu bax poste yep ay poste politique la donc jangam lu ko may mom moy un simple cadre euh, un simple euh, jeune cadre aux impôts loolu rek la ko jàngam may donc ja mais politique bu mu yàgg def nga xam ni yàgg na ko def depuis par euh, euh, par parti socialiste aux années quatre-vingt-dix donc loolu moo ko yóbbu ba ñu mujj ko yóbbu Dakar mu nekk directeur des impôts et domaines bu mu jógee Pikine boobu nag commencé na am ay milliards ci la commencé jël famiyam ak sàcc suuf ah jëlee leen nag ci kër googu nga xam ni moo nekkoon bu baayam sampoon foofu. te yorul dara muy keur terrain wu jambour mu commencé nak di jënd parcelle ay terrain ci la jëndé rond point case ba fofu mu def siège am bi immeuble am bobu na la won photo yi mu jënd mu commencé jënd unité 6 commencé jënd comme yor na milliard mu commencé nak di patcho fi nga xamni moy mooy Parcelles mu commencé nak di jaay Parcelles Assainies fep fu mu jaar nee nañ gestion musul def gestion bu baax ci nit yi nee nañ Amadou Ba mesedere la man leen luy mesedere ñu ne ma day màtt di ëf Amadou Ba duy wax Amadou Ba nit boo xam ne la waxam bëriwul tàmmul ay xasanteeke noonu mais criminel moom moo tax ñu koy woowee naan le monstre froid nit boo xam ne la da rey te du wax du yëy du yàbbi manam vrai mécédéra la ñu ne ma day matti di euf du wax ci kaw janaxu bajo la day ngeñ di euf deug leen bu baax na ñu ne ma janaxu bajo la day ngeñ di euf manam day matti di euf di matti di euf di matti di euf nga xamni doyek yek ba mu lek la non lay def manam tay bu doon tay dañ nan jaan nit ko xamni la dalay dalay mar di la warax dalay mar ba nga toy mu warax ngay mar ba nga toy mu warax fekk yow do ko yek donc ñu ne mesedere la ñu ne mi keur la ku doy war la donc lolu motax mu nekk fa nak wa ba wa PDS ñew ane 2090 la commencé ak PS 2000, PS danu wa PDS fekk ko fa mu dem militer ji ci PDS donc mu jóge PS nag fas yéene militer PDS en 2001 mu ñëw ne waa PDS la commencé ànd ak ñoom commencé nag naan da leen di jàppale waa PDS ñoo ko jëlee Pikine yóbbu ko Dakar def ko directeur des impôts et domaines mu nekk impôts et domaines bu Dakar bu mu ñëwee impôts et domaines bu Dakar mu installé ou fa djel temps positionné ou fa def fa ben clan bu graw ñu naan euh, bu mu ñëwé fofu def na fa clan def na fa ay association de malfaiteurs ci ñëm fa fek donc politique mo ma encore ma rappeler len ko limu dem PDS PS bu mu génné en tant que cadre simple wa PS ñoko def directeur bu impo et bu Pikine ñooñu daanu mu dem PDS waa PDS def ko directeur général des impôts et domaines politique parce que politique mu nekk fa foofu nag moom it comme sàcc na fa les milliards mu tàmbale nag liggéey nu mu njëkk a def mooy mu récupérer ki nga xam ni euh, moom mooy Tahirou Sarr Tahirou Sarr nag dafa amoon magasin ci wetu en face impôt et domaine Tahirou Seydou Sarr di jaay ay caleçon di jaay ay t-shirt da koy ubbi toog di jaay mu récupérer ko ne ko yow am nga ay client gis naa ngay jaay gis naa nit yi di fi ñëw Tahirou Sarr mu ne ko dama buggoon ñu liggéey fekk ma sama bureau donc Tahirou Sarr bu mu ñëwee bureau la ko xamal ni dama bëgg sa client yi nga xam ni dañuy ñëw ci yow nga jaayal ma leen ay terrain xëy na dinañ ko soxla comme yow dangay leen di jaay donc mu récupérer Tahirou Seydou Sarr en tant que commerçant pour mu fas yéeneel ko jaayal ay terrain noonu ak Farba Ngom bi nga xam ni moom mooy nekk géwélu tukkuleur yi di woy baaxumaamu tukkuleur yi mu gis Farba Ngom na ko yow Farba comme yow dangay woy te ñi ngay woy dañoo am xaalis ay tukkuleur yu am xaalis lañ nekk ay Gabon nekk ay Congo nekk ci ay or nekk ci ay Jama seen yor nañ alal te ñooñu da nga leen di woy ñooñu yow dama laa soxla yow foog nga ñëw sama biro ci la far ba Ngom ñëwee bureau mu xamal ko ni moom mooy directeur impo et domaine moom day jaay ay suuf dafa bëggoon di jox Farba Ngom mu koy jaayal ay suuf ñi nga xam ni mooy borom alal yi ba Ngom di woy ci tukulóor yi ci la jëlee moom ki nga xam ne mooy far ba Ngom Tayiru Seydou saar ñoom ñaar ay tukulóor lañ dañuy làkk tukulóor moom Amadou Ba day làkk tukulóor ñu yokk ci tamit Bamba Ndiaye Bamba Ndiaye nag moom it soriwuloon foofu da doon jaay ay karo da doon jaay ay karo moo doon jaay ay karo Bamba Ndiaye da ñëw ci palaasu baayam di toog ci palaasu baayam baayam noonu la baayam faatoo ci piliyaan ba moom mu remplacer baayam di jaay ay karo Bamba karo mu jël Bamba Ndiaye it donc mu jël ay commerçant jaaykat ñu mu jël ñëpp a part le griot Farba Ngom kii di Tahirou Sarr jaaykatu caleçon la

nee il s'est enrichi loolu yéen ko gis ci télé yéen ko sétane yéen ngi Sénégal yéen ngi partout dans le monde mais sétane ngeen ci média yu dem mo avoué ni il a bénéficié du système mo avoué ni il est très riche mo avoué ni bu Bill Gates taxawoon sax seet si ko mën nako may passe waye mo avoué ni avant Ousmane Sonko di créer ak ay nitam ñom Waly Bodian ñoom Bassirou Diomaye Faye avant ñoo créé syndicat bi riche na profité na ci ba nga xam ni kon profité na ci système bi bu baax a baax avant syndicat bi di ñëw di ko indi problème dinañ leen wax nag problème ak syndicat bi lu mu lu mu affaire problème yi mu am yépp mais nañ ci dem ndànk-ndànk pour bañ a sotti donc moom Amadou Ba bu mu njëkkee ñëw lu mu njëkk def moom mooy ci impôt et bu dakaar dafa installé ay nitam dafa jël dafa ñëw récupérer ña fa nekk def leen ay nitam yu ko jege. ñoo xamni que bu la né dañuy def bu dañuy ñu waxtaan ci d'accord donc mu am ay agent dans la d'égypte dans la direction générale des impôts et des moy le clan des menteurs colporteurs ñu taxaw nous avons a qui euh, li nga donc Amadou Ba bu ñëwee yoroon chaque village artisanal chaque village artisanal bu am ay dessin yu ñu village la yoroon sonnoon lool nag mais comment sàcc sàcc ak sàcc bi mu commencé di di suqaliku sac boobu la doon def ay li nga xam ne mooy cartographie bu Dakar cartographie bi mooy Dakar njaay wërngal këpp fu nit dëkk ak fu nit dëkkut bu ñu ñëwoon mu toog ak ay nitam ñu xotti Dakar poche yi quartier résidentiel yi Point E Sicap euh, Mermoz Sacré-Cœur donc bu ñu xoolee ñi nga xam ni am nañ xaalis ñi ak ñooñu luñ jënd li ci des mooy les poche les coins et recoins yooyu yëpp da koy récupérer bu ko li lijjanti kayit di jël moom la doon jox Farba Ngom mu xotti lu ko dalee euh, ni ñu koy waxee après parcelle foofu yëpp Farba ngoom la ko joxoon moo ko jaay quatre-vingt-dix pour cent ci ñu fa am kër te jaaruñu direct ci impôt domaine Farba ngoom moo leen jaay ba ci SICAP ba ci cité des enseignants ba ci ba ci ba ngay dem aéroport foofu yëpp Wakaam Yoof Ngor yooyu yëpp ki nga xam ne moom mooy Farba Ngom la joxoon Nord Foire Ouest Foire yëpp Farba Ngom moo ko jaay moo tax foofu la gën a am communauté pulaar bi fa lañ gën a concentré wu surtout Foire donc foofu communauté pulaar bi la mu jox ko Farba Ngom kon Farba Ngom ñan lay jaay pulaar yi lay jaay ñan lay jaay ñi muy ñi muy tagg mooy borom alal yi ay gise-gise yeeg caam-caam yeeg ay famille famille yooyu daal ay famille yu am xaalis yi nekk entre euh, euh, Côte d'Ivoire Gabon Congo kon moo jaay foofu yëpp aéroport mu jox ko mu jël ki nga xam ni mooy Tayrou Sarr Tayrou Seydou Sarr jox ko lépp titre foncier yi nga xam ni moom moo nekk li ko talee Parcelles Assainies jëm yëpp Parcelles Unité yëpp ci beneen côté bi xam nga leen léeg côté aéroport la moom kii Farba day dem ouest Tayru Sarr Seydou Sarr dem est mu jël ñi nga xam ni ki nga xam ne moom mooy euh, ak ñi ak gaayam yi je dirais jox leen ñu commencé di jaay bu ñu demee jaay titre foncier yi ñoo tax Farba Ngom a avoué publiquement que jaaykatu suuf la nee na moom suuf moo ko may xaalis te ku jàngul ne jaaykatu suuf la kon foofu da ngeen di rappeler wu rek dama leen di rappeler pour ngeen xam ni lii lépp ñoom waxoon nañ ko ci ay interview te bàyyiwu leen ci xel Farba Ngom nee na moom day jaay suuf jaay katu suuf la ku ma jox so suuf ma jaayal la loolu fu ko xamee kii nga xam ne Amadou Beydi Ba moo ko doon jox suuf muy jaay ñii nga xam ne mooy euh, tayru Seydou Sarr moom it di jaay donc noonu lañ commencé di jaay suufu Sénégal chaque guddi ñu toog ñooñu rendre ko compte kii ne jaay naa cinquante titre foncier jaay naa quarante terrain kii jaay naa soixante terrain kii jox na ma cash desal na ma ni loolu lépp guddi gi lañ koy toog waxtaane à part ñii Cambérène lañ jaay moom ah, ah, ah, Seydou Sow Seydou Seydou euh, Sarr euh, moom mooy jaay côté Cambérène côté parcelle Cambérène jëm géejawaay yooyu yëpp moom moo ko doon jaay donc euh, voilà voilà mu Tayrou seydu saw moo ko doon jaay Bamba Ndiaye aussi di jaay donc ay courtier lañu woon ay courtier yu Amadou baax mu commencé noonu la séddalee Dakar loolu it te fu ñu dem loolu may na ko ay milliards milliards milliards guddi gi nag la ñuy ñëw bu ñu ñëwee toog génne cartographie Dakar partagé génne les poche yi nga xam ni ay ruq-ruqaat yooyu ñu génne poche yi les quartiers IP lépp yi nga xam IP yi am xaalis yi borom alal yi donc noonu lañ def ba bëri xaalis ki nga xam ni.